wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa moolana muhammadin wa ala wa sahbihi wasallim ñu ngi nuyu mbokk yëpp ñu ñuy seetaan ak fu mën a nekk ci àdduna di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xëy na kàddu yi nag liñ fi jot a jàllale te magi dëkk bi jàllale ko am na solo lool ndax taarix moom ni mu baaxoo toxoo nit da koy jël jox ko doomam mu jox ko doomam mu jox ko doomam ba mu fekk ñu gën a ndaw kon nag liñ ci jot dégg moom ak sant la ndax dégg nañ fi luñ déggutoon kon muy Baye Cheikh Awa ak sëñ Kàbb ak sëñ Ibrahima Mbaye ñoom ñëpp ñi nga xam ne sànn nañ seen seen kàddu ñu ngi ñaan suñ borom dëgëral leen suñuy kàddu ak suñuy ñaan nag fiñ koy jiitoo mooy tàmbale ko ci sëñ Muntaxa mu ko ñaanal suñ borom kàttanal ko ba liggéey sëñ Tuubaa bi mu yéene fam ko bëgg a mu àggale ko fa nga ñaan suñ boroom itam def ay leer ak xéewal ak yërmande ak jàmm ci sëñ Mor Anta Sali ak mboolem ñim fekk ci dëkk bi ak ña ko fekk si def ko ci sëñ Tuubaa mi nga xam ne mm, lépp mooma waaye def ko ci Cheikh Mouhamadul Mourtada ak mboolem gaa yu baax yi nga xam ne yëpp rek amoon nañ yéene mbaax xalaat bu rafet ci dëkk bi liñ ci jot a jànge nag kon mooy ni ko Baye Cheikh waxee dëkk bi ñu ko sañc mooy waa ngéyeen ñoo ko sanc eh, góor gu baax gu ñuy wax Modou Mame Dieye itam jóg ngir tasaare lislaam ak tasaare alxuraan di dox ba ñëw fi liggéey yitam ci liggéey boobu lu ama am solo mooy alxuraan ji ak njàngale mag yéni mel ñuy dox ba ñi nga xam ne sëñ Mor Anta Sali xam baax ñu fi tëdd itam mu gis leer ga tax mu sant sëriñ bi ñu indi ko fii euh, sëñ Mor Anta Sali nag moo fi jiitu Lat Joor ndax ñu bari dañoo jàpp na Lat Joor dafay ñëw mu door fee ñëw waaye moog Lat Joor la leen boole léegi-léegi sax ma dégg ko ne sëñ Mor Anta Sali moo doonoon attekatub Lat Joor waaye man damay wax ne waxtu wax jooju njuumte la dañ naan attekat la bu boo xam ne daana attel Lat Joor ab attekat la woon buy atte ci diine daana atteel nag Lat Joor waaw ndax li ko booleeg Lat Joor mooy bi nga xamee ne Maba Jaxu woote na ca Ñooro kilifa diine yëpp takku dem fa mu takku dem moom ngir jihaat ci yoon yàlla ni ma koy waxee ne dafa am benn ayab alxuraan boo xam ne bu doon mbubb koo solal mën na ko ëpp mbaa mu yées ko ba mu des sëñ Mor Anta muy alladina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ahsanu darajatan inda allahi wa ulaikum alfaisun yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha naimun muqim mooy ñi nga xam ne jóg nañ di gàddaay ngir ngir ngir yàlla moom def na ko jóge na ci réew yu bawal dem gàddaay jihaad na it ci yoonu yàlla mooy xeex na jël na jaaseem xeexal islaam bakkanam mënoon na ca topp def na ci it alalam kon ñooñu nag ñi nga xam ne ñoo defal loolu yàlla yàlla nee na li ma leen di fayee ëllëg mooy mbégte ak ak ak yërmande ak ngërëm laa leen di fayee ëllëg ak àjjana ju sax ba faaw nag yoo xam dootuñ ci génn yàlla nee ñooñu it ñoo gën a rëy ay daraja ci mbindeef yi kon moom bu jurutoon sëñ Tuubaa itam bu xamante ak sëñ Tuubaa sax bokk na ci ñëpp ay dara ci mbindeef yi ndax li mu defal diine mooy xeexal na diine gàddaay na euh, joxe na bakkanam lu baree bari mënoon na ko caa fekk ngir yàlla kon suñum xel day dal bu baax a baax ci moom ñu xam ne bu jote wutoon ak sëñ Tuubaa dara moom rek doyoon na beneen bi mooy sëñ Tuubaa ci boppam bi muy ñëw jamono bu fekkoon ku gën sëñ Mor Anta ci kaw suuf kooka koy jur ci góor bu fekkoon ku gën soxna jaara ci kaw suuf it jur kon suñ tubaa suñ borom da koo tànnal fa mu war a jaar mooy boobu léegi nag eh, sëñ Mor Anta Sali itam li ko booleeg Lat Joor mooy bi nga xamee ne Maba Jaxu faatu na ña newoon ci boroomi xam-xam bari lool Lat Joor doonoon buur xool ña fa nekk ñëpp seen jikko ak seen xam-xam ak seenu maandute mu ne ko yow mi yaama ci doy ndax boo fekk na Lat tuub ci Maba Jaxu tuub gi nag du woon tuubug dugg ci diine ndax Lat ci diine la judd waaye tuub la goo xam ne génn ci ceddo ñëw ci diine mooy bàyyi lépp lu yëfi ceddo mu nangu ko loolu la Maba Jaxu signé signé woon ak moom ne ko boo ko defee ma jàppale la mu nangu ko léegi bi nga xam ne Lat Joor def na loolu ba Maba dem faatu Lat Joor nag comme loolu lépp lu muy def ci diine la ko bëgg di teg xool na ña fa nekk ñëpp Sëñ Mor Anta Sali doy ko ci jikko ci xam-xam ci maandu te ci lépp mu ne ko kon nag bis ni ki tey li la ñaan mooy nga ñu ànd lépp lu may bëgg a def nga wax ma taxawaay ba ca diine wax fa ca diine taxaw ma man faa taxaw waaye sëñ Mor Anta Sali euh, jombonte na di àndanteeg Lat Joor di ko wax lu ko neex mbaa mbaa yu ni mel ci loolu bañ na ko ba musta dëkk ak Lat Joor ci benn dëkk ndax biñ jógee Ñooro dañoo dem dëkk bu ñuy wax euh, kër Amadou Yàlla la la Lat dem sëñ Mor Anta Sali dem Pataar bi nga xamee ne nekk na foofa ñu ne fa nga xam ne bokkuñ dëkk buñ dëkk yoralu ko leen lennam biñ fa jógee ba Lat Joor ñëw Cëlmaxa sëñ Mor Anta Sali ñëw Mbàkke sañ ci Mbàkke Kajoor kon foofu da ngay gis ne ba léegi eh, ñi nga xam ne nag seen histoire dañuy wax naan moo daan àtte Lat Joor mel ne moom daal ku àndoon ak Lat Joor la di ko wax la ko neex ak yooyu sañ Mor seen Sali nekkut ci yooyu amutoon sax googu jot nitug yàlla la woon kat la woon tasaarekatu diine la woon te li wax rek bu fekkoon dara lu sell di rek jege na ko rek kon du jub sëñ Tuubaa waaw waaye suñ borom da koo setal ci lépp ci ay maamam ci ay ndayam ak i baayam ndax sëñ wax na ne ñaar ci Mbàkke laa ko fekk waaye indiwu ma ko ci mooy teela a mokkal alxuraan ak fonk kilifa nee na ñaar yi mu indiwu ma ko ci Mbàkke dama ko cee fekk kon dafa mat a leeral ne sëñ Mor Anta Sali maanaam bu fekkoon ne xamul sëñ sax moom dong dong dong dafa doyoon ci àdduna bu ñëwoon ñu mën caa jàpp waaye nag yàgg a sonnal yàlla ak ak ak yàgg a góorgóorloo moom sëñ Mor Sali moo tax sëñ Tuubaa faye moo tax suñ borom faye ko sëñ Tuubaa kon loolu it lu mat a xam la ñu xam ne eh, sëñ Tuubaa wax na ci moom ay wax yoo xam ne waxu ko ci kenn kenn nag laa wax kenn koo jël rek la sëñ moo sëñ Tuubaa wax léegi nag eh, bu sëñ Tuubaa waxee ndax bari na ñoo xam ni ñuy wax ci sëñ Mor Anta Sali léegi-léegi boo koy dégg dangay xam ne ñii dañoo xamul walla wala daal seen gis-gis gàtt na waaw léegi-léegi nga dégg ñu naan sëñ bi dafa bind ab leetar di ko xaw a yedd ci sëñ Tuubaa war ma jim jox sëñ Mor Anta te sax da koo fekkut ci luñ ko mën a yedd nag ndax waaye xool sëñ Tuubaa ni mel rek sëñ bi ni mel ci alxuraan ni mel ci diine ni mel ci xam-xam loolu lépp ki ko def ci moom kan la sëñ Mor Anta la di kon kooku kay sëñ Tuubaa cant rek la mën a la ko la mën a amel te moom it la wax ci moom waaw kon ñi nga xam ne ñoo am beneen gis-gis nañ nañ xoolaat seen taxawaay te xam ne daal nit mënta gëm sëñ Tuubaa wala mu fonk sëñ Tuubaa wala mu wormaal sëñ Tuubaa di xool sëñ Mor Anta beneen bët loolu moom ku ko def ku ne yëgal ne tawatan ci yow waaw sëñ Mor Anta Sali wax ne. góor yàlla féetewu ko kaw du xam-xam du jiddu du du du njàmbaar ndax njàmbaar doy na ci rek bi diine woote nga jël sa bakkan teg na ko caa ñàkk saxaabatul kiram sax biñ xaree ñii dañoo faat ñi ña ca des yàlla faatu leen waaye ñoom ñëpp a tollooy daraja ndax ginnaaw bi faatu ngir diine jotee taxaw nga rek kon da am yool ba waaw kon nag euh, mu doon koo xam ne daal Euh, ku mat a bàyyi xel la waaw dëkk bi itam euh, sëñ moom bi nga xamee ne noonu nga ko wax sëñ Mourtada ñëw na fi taxawal fi daara ak i donga ñuy góorgóorlu di ne ko sëñ Tuubaa doon defee mooy tërbiye ak jàng ak yar ñu ne ci loolu nekk ci loolu njabootu sëñ Tuubaa gépp fekk nañ ko fi ak mbokki sëñ Tuubaa yëpp waaw euh, bi nga xamee ne dem nañ ba ci at yi quatre-vingt daana ko màggal lu njëkkoon nag ca jamonoy soxna Musli comme ni nga ko waxee ñu dem ba benn diir boo xam ne màggal gi arrêté nañ ko ab diir bu xaw a yàgg ginnaaw bi nag la lañ ko sàkkuwaat ci moom mu ànd ca waaye sëñ Murtada itam néewaana màggal goo xam ne daana ca dem sax waxuma la ak naan da koy da koy wooteel boppam waaw waaye màggal gii fuñ ko mës a defee dana fi ñëw def fi ñaari fan wala benn fan ak lu topp fanaan fi yendu fi ànd koog taalibe yi ñaanal leen te lim fi daan digle it mooy jàng alxuraan. jàng fi salaatu na nabi def fi istixfaar loolu rek euh, la la fi daan digle moom la fi daan nekkee bi nga xamee ne jóge na feet lu jiitu mu fi jóge ndax 74 la fi indi sëñ Fall teg ko fi 74 ba 2024 loolu juróom fukki at la sëñ Fall yu nekk fi dëkk bi amaana am na jamono métti woon na lool ndax ni ñu ko mag ñi nettalee ci lu mel na manqué am ndox ak ak jumtukaay yu bëree bëri rek yoo xam ne amaana nit dina ko soxla ci dundam te mënu ko am euh, daloon na ko waaye teewul muy muñ rek nekk fi ba lu baree bari tey suñ borom yombal na ko te rek lay jëm nit nag loo bëgg bëgg mbir bu mbir ma jotul mënoo ko sottal ndax sëñ Tuubaa dafa am ku mu waxoon ne ko wayam kuruuna wayam kurullah wallahu xayrul maakirina nu ngeen koy tekkee kooku nag loolu dinañ koy tekkee mooy rek wayam kuruuna ñi ngi fexe wala boog dinañ fexe wayam kurullahu yàlla di fexe wallahu xayrul maakirina yàlla nag moo dàq fexe sëñ Tuubaa ne ko loolu bu ko tuub ko da nga naan wayam kuru ne di ngeen fexe yéen nit ñi wayam kuru laahu yàllay dogal na ko yàlla amul jotuk fexe ndax fexe mooy kuy nas di nocci ngir mbir sàngam sotti loolu doomu aadamaa ko man waaye yàlla moom newul foofu kon mbir lu mu rëy rëy rek la sëñ Abdou Khadre wax jàmbaar amul kuñ dimbale am kon yàlla nañu suñ borom boole dimbale ñun ñëpp waaye njabootu la sëñ na wax ca way wa naan euh, Euh, lakin unaadi kullal bilaadi ilaa imaadi ximaay maanaam maa ngi woo waa réew mépp ku xam ak ku xamul képp ku aju ci sëñ Tuubaa fii am nga fi cër boo nga xam ko naka fi ne wala nga ñàkk koo xam waaw am nga fi cër kon dëkk boo xam ne sëñ Fallou da leen fe nekkal nekkal rek ni ko euh, sëñ maam noon nekkee daaru man daaru man nekkal fa murid yëpp sëñ Moustapha nekk Mbacke Kajoor nekkal fa murid yëpp sëñ Moustapha mi nekk Tooki nekkal fa murid yëpp lool noonu rek la maanaam noonu rek la demee waaye fii moom ñëpp ko bokk waaw dëkkub sëñ Tuubaa la dëkkub sëñ Morante sa njabootu sëñ Tuubaa gépp sëriñ baa ngi leen xamal na ñoom la fi nekkal lu mu fi defit ñoom la ko defal mi ngi leen yaatal di leen ubbil boppam itam ci lépp nag waaw ku ci am xalaat bu rafet andil ku ci am gis-gis bu rafet andil lu ci waay ndax loolu mooy àdduna ndax suñ borom rek mooy ki nga xam ne soxlawul kenn ci lenn damay wax ne président de la république bi nga xam tey moom la yàlla teg ci bopp réew mi sax bu otoom dawoon ba paan xelam dem ci mécanicien bi dégg nga ab xalifa général lu mu rëy rëy tey bu bu bëggoon a def bâtiment am xelam def ci dem ci maçon bi yàlla rek mooy ki nga xam ne xelam du dem ci kenn ndax lépp mënal na ko boppam kon ku nekk sa xalaat bu rafet sa xam-xam sa gis-gis indil waaw bu ndax waxtaan rek bu amee lu bëree bëri mën naa mën naa mën naa mën naa saafaraw euh, ba nga xam ne nag léegi sëñ Muntaxa jël am na liggéey boo xam ne fekkoon na sëñ Fallou sumb ko ci kër sëñ Mor Anta Sali ak ci bërëbu Maam Mor Anta Sali ak lépp waaye sëñ Muntaxa bi mu fi mu ñëwee nag ci màggalu Dexële gii te yéeneem ju rëy ja ndeysaan mu am fi eh, yéene joo xam ne moom moo ko bëgg a eh, bëggul kenn man ko ci tax mu am lu mu ca jël teg ci loxoom sëñ Moussa Abdoul Akram muy miirab armeel yi teg ko ci loxo moom itam bokk sëñ bi joxe ba léegi ma ngi koy defee ci anam ga gën a rafet ndax ba boobaag léegi génn dëkk bi dégg nga fa lay nekk yendu fa léegi léegi fa lay jullee gee ndax li may wax man lu ma xam la kon moom itam loolu lépp yéene la rek nag yéene ñu koy ñaan suñ borom kàttanal ko dooneel dooleel ko ba ba ni ko tàmbalee mu àggale ko ci ci na gën a rafet waaw te bu ko defee murid yëpp la ko jullit ku jub jullit sax laa ndax bari na ay taali jàng yoo xam ne ci réew mi tey amaana sax du ñuy murid sëñ Mor Anta Sali jàngal seen i maam baraa na ñoo xam ne ci réew mi tey bu dul woon sëñ Mor Anta Sali ak réer dana tasaaroo ci réew mi ndax bari na boroom xam-xam booy dégg tey wala daaray alxuraan wala yu baree bari fii lañ jafale taal boobee ci Mbàkke Kajoor ak ca dëkk yi ko jiitu kon daal eh, ñu ngi ñaan rek te wax nag ne sëñ Tuubaa dafa wax maa ngi koy wax lu bari ci bayitam ne naxwu abi rawdatuhu munawwara wa naxwu ummi haaluha mustahira sama bërëbub baay ba bërëbub leer la sama mbir yu yaay ya mbir yu siiw la maanaam foofa ña xam grammaire muy naxwu sëñ Tuubaa da doon jàngale mubtada ak xabar waaye sëñ Tuubaa moo amul jotug wax nii rek wacc mbir mu muy wax mu ne da cay dugal njariñ benn mu jox la ci xibaar bu lay jariñ ci sa àdduna wala alaaxira wala mu yokk la ci xam-xam wala mu xamal la ci loo xamutoon ñun kon lim ñu dimbalee man de mosuma dégg sëñ Tuubaa ne fenn ci kaw suuf fudul madinatu munawara mu tudd muy utiliser baatu munawara boobu fudul fii kooko xam nag néew mu amut waaye ku ko xamit nga dimbalañ ci waaye fii moom moo ko bind ci téere bu ñuy wax sanada tulaab ku ca dem fekk ko fa ca baabul mubtada wal xabar loolu luñ mën a se luñ mën a làmb gis daj ko la kon bërëbu leer nag ku amul leer kon ci yow la sëñ Tuubaa mi nga xam ne lum mu ñu wax mu doy ñu wax nañu neñ fii bërëbu leer man de maa ngi waat ci yàlla ne ku ma suul fii ak ku ma suul Tuubaa xàmmewu ma ko yàlla seere na ko waaw bu ma faatu woon fii tey ku ma fi jàngat jàngate yóbbu Tuubaa tooñ nga ma ba ca kanamu yàlla waaw ndax ndax ku bëgg a àgg ci sëñ Tuubaa ñi ñëpp nañ ko xool suñ bopp yow mii tey sëñ bi boo tëju woon sa néeg bii na da son wal wala da ngaa fatu nangam sab xarit bu ñëwee fëgg la mën nga ko ubbil sa doom noonu sa keneen na mën ngaa bañ a ubbee tam waaye sa baay moom bu ñëwee ba ak si fëgg loo jàpp danga ko kon foo ne waaye mën na faa jaar sëñ Tuubaa waaye jaar ko ci sëñ Mor Anta Sali gën a gaaw na loolu moom sikki nekku ci kon nag morit yëpp nañ xam ne nañ takkuwaat gën koo jàppaat gën koo fonkaat gën koo joxaat gëddam te xam ne li sëñ Tuubaa am li ci gën a gànjël suñ Mor Anta Sali ci bokk waaw wax naa ko fii ci màggal gi sëñ Mor Anta Sali yàlla may na ko sax lu moyit sëñ Tuubaa waaw doom ju mel ne sëñ Tuubaa ku ko am ne nañ mën a mën a diw rek waaw kon kay kooko itam kilifa la nañ ko nañ ko nañ ko fagar te fonk ko te ñaan suñ borom daal fayal ñu ko waaw ci darajee Sëñ Tuubaa ñu ngi ñu ngi ñaanal ñëpp nag di xëy na wax moom du mënta woy ndax xayrul kalaam yi maa xalawa dal li ëpp solo ci wax mooy lu gàtt ta am njariñ xëy na njariñ nag yàllaa ko yor ñu ngi ñaan rek mu suñ borom defal njariñ ci wax ji